ban taxawaay lañ ci fas yéenee am. waaw muy dogal boo xamante ni professeur kilifa yu bees yi jël nañ ko ci wàllu suuf dakkandil maanaam suspension lépp lu jëm en tout cas ci li nga xamante ni mooy dañuy joxe ay boo et cetera ci diwaan yu bëri du rekk Ndakaaru dem na ba Thiès laal Saint-Louis on rappelle que. mbuur way mbuurkat bi ci biir cees la nekk muy loo xamante ni nouvelle ville bi professeur nag jot na bind ay téere yu bëri jëm ci wàllu suuf la jurisprudence sénégalaise en matière immobilière yaa ko bind yaa deux ans bind nga aussi droit sénégalais des contrats immobiliers am na téere bu ñuy wax aussi droit des entreprises individuelles droit des sociétés de capitaux ak transfert électronique de fonds yooyu yëpp ay téere la yoo xamante ni nga bind ko ci wàllu suuf dogal bi déjà ban première lecture nga ci def euh, même si comme on dit document bi dañ document secret la wante daanaka nekkut secret ndax mi ngi ci mbedd bi. jërëjëf Chérif effectivement euh, document bi ñuy dégg depuis démb ak yeneen yi ñu gis aussi ci Descos dama jàpp ne mooy ñaareeli bés bi gën a diis ci mbirum suuf ci Sénégal. Mhm. te dafay mel ni c'est l'histoire qui bégaie. Mhm. le 1er mai 1964. le président Léopold Sédar Senghor woon ne dañuy vote la loi sur le domaine national le 1er mai 1964 bi mu ko annoncé le 1er la loi de 64 sur le domaine national ñëw en juin 1964 le 17 juin 1964 mooy loi bi nga xam ne moo njëkk a andi wax ak coow ci mbirum suuf au Sénégal boo demee ci ku mel ni Doudou Ndoye yi mi ngi naan c'est la c'est le deuxième crime bi communauté lébu dund boo demee ci ku mel ne Abdoulaye Dieye mu ngi naan c'était une nationalisation sans payer loolu di première bës bi diis ci matière suuf ci Sénégal ñaareel bi pour man mooy bii ndax li tax ma jàpp ne bës bu diis la bu ma naan diis mooy colo gi mu am ci mbirum suuf euh, dama jàpp ne séisme te defe naa le mot n'est pas de trop ah, séisme am na ci l'écosystème des transactions immobilières tremblement de terre li ko waral mooy boo xoolee dañu taxawal transaction ci domaine yu bari te bu fekkente ne dakaar la gox yi nga xam ne moom lañu ñu tey ci Ndakaaru yooyu gox maanaam ñooy polariser lépp luy transaction immobilière ak li ci mën a judd yépp peut-être demee ba continuer ci waxtaan wi dinañ gën a mën a dellu si ci loolu mais man daal ci njël li ma ci mën a wax mooy jàpp naa ne séisme moo am tey dans l' écosystème des transactions immobilières nga wax ni séisme la waaw ndax xam nga bu nu nee dañuy dakkal si sama njort bu rafet damay jàpp ne dakkal la ngir vérifier waaw pas du dakkal buy continuer waaw mm. pour de bon pour càmbar ko dakkal ngir càmbar laa koy jàppee mm. li tax ma da jàpp ne dakkal la ngir càmbar ndax risques yi ci nekk dafa bari waaw il est vrai que yàgg nañu ko wax maanaam dañuy gis ci littoral bi ñun ñëpp ñaawlu nañ mm-hmm. man ñëw naa fii ci seen i émission ñu ñaawlu ko fi yenn suuf yi ñuy joxe yi tamit yenn goxu dëkk bi ñaawlu nañ ko yàgg nañ ko di ñaawlu kon danay yoon tey ñu taxaw ci xool nan lañ koy jongante waaye juriste bi may nekk day xaw a prudent mm-hmm. ndax dafay am tiitaange buy na ci moom ban tiitaange la tiitaange bi li koy waral ñaar la mm-hmm. xam nga bu ñuy wax littoral nit ki dina gis ne corniche bi lii littoral la. Hmm. mais ñun juriste mën na noo bañ a gis littoral ci corniche bi. d'accord laa bëgg a wax foofu. Hmm. effectivement littoral mi ngi bokk ci domaine public maritime. Mmh. Sénégal 1976 danoo voté code du domaine de l'État te j'espère que j'en profite pour sargal sunu papa yi ak sunu yaayu juriste yi nga xam ne ñoo fi nekkoon de 60 ba 80. ay législation yi lañu doon def yoo xam ne pour yaxanal la yaxanal du tey la door. Mm-hmm. nañu reconnaître li suñu ñi ñu jiitu defoon. boo demee la loi de 64 yaxanal moo ko tax a jóg le code de l'eau de 81 yaxanal moo ko tax a jóg la loi de 76 yaxanal moo ko tax a jóg ressources naturelles yii ñuy naan tey peuple bee ko moom loi de 76 waxoon na bu yàgg ne état bee ko moom. Mm-hmm. léegi boo demee ci loi de 76 ngir yaxanal boobu. Mm-hmm. dañu ne état am nga suuf yoo moom. ñu ne ko suuf yooyu nga moom dañ ko xaaj ci ñaari pàcc. domaine privé de l'État ak domaine public de l'État ñu ne ko nag lépp li ne ci sa domaine public donte yaa ko moom mais munoo ko jaay munoo ci it joxe lu dul ay droits précaires droits yoo xam ne day oyof saa su ne mën nañ koo récupérer droits yi it boo ko joxee nit munu ci tabax tabax buy sax tabax bu nu mun a wékki lay doon mhm. démontable ndax dañu jàpp ne ay suuf lay ne ay moomeel lay nekk yoo xam ne réew mi yëpp dañ koy soxla. Mhm. loolu moo composé la domaine public. ñu ne ko nag sa domaine privé moom. Mhm. mën nga ci jaay mën nga ci ab able mën nga ci dëkkal ñi lay liggéeyal. Mhm. buñ ko defee noonu. loi dafa war di bàyyi xel lii ñëw ndax on ne peut pas tout prévoir. donc il faut que ñuy prévoir ay règles yoo xam ne mooy adapter loi bi ci avancé yi. loi bi ne waaye yow président bi nag domaine public moom kenn du ko kenn mënu ko laal kenn mënu ko jaay mais yow président bi mën nga génnee lu nekk ci domaine public yóbbu ko ci domaine privé état mais yow président kotta ko mun ci réew mi yëpp li réew mi yaatu yaatu président yow rek yaa ko mën ministre mën na jël par arrêté benn bien dugal ko ci biir domaine public mhm. mais génne domaine public président kotta ko mën ñu ne ko nag les rivages de la mer jusqu'à 100 mètres yow président mën nga ko génne par décret soo ko génnee par décret da nga koy dugal ci biir domaine privé de l'État su fekkente ne immatriculé wuñ ko danga nga koy dugal ci biir domaine national mais mën nga ko faa immatriculé andiwaat ko biir domaine privé de l'État président Cotte donc loolu dañu jàpp ne président mooy le dernier garant de l'intérêt général mmh. ci réew moom la ñu fal ngir mu sàmm réew mi ñun ñëpp moom la ñu lig jàppale ngir réew mi mun a ñàkk moom la ñu ne nag kon moom moom rek moo mun a génnee loolu léegi su ko génnee parce que suma sama juddoo su ko génnee ci domaine public bi yóbbu ko ci biir domaine privé état bi mën nañ ko jaay nit mu am ci droit de propriété mhm. dinaa ci dellu mhm. mën nañu ko jox nit bail amphithéotique mu am ci amphithéose ci ñaar yi rek lay taxaw. voilà lan mooy bail amphithéose. waaw bail amphithéotique bu la ko état joxe. dalay jox la ñuy naan de l' amphithéose droit réel la boo xam ne. dafay nuru propriété waaye mateewu ko ndax moom lépp li la propriété di jox dina la ko jox. Mhm. waaye moom daa am durée de vie. bu dee Sénégal la bu la ko état joxee maximum cinquante ans la renouvelable. dans la limite de cinquante ans. mais ba emphytéose boobu mën nga ko jaay. mën nga ko yóbbu hypothèque. Mhm, donc foofu la sama tiitaange fii mhm. nekk. Mhm. bu dee yaay dañ la ci jox droit de propriété état mënu ko laal ndaredu dala defal une indemnisation par la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. te foofu juge bi la ñu wax mu veiller ci montant wu indemnisation. te loolu constitution du Sénégal moo ko. Euh. moo ko teg en son article 15. bu dee bàyyi emphytéotique la donte état moo la ko jox donte état moo la ko jox. dañuy xool yow état bi mu la ko joxee est-ce la nga warlanteeg moom ci contrat bi yaa ngi koy def ndax bàyyi emphytéotique bu ñu la ko joxee dañ lay naan da ngay def mise en valeur bi. dans un délai de deux ans. bu fekkente ne la nga warloog état yaa ngi koy def yaa ngi def mise en valeur bi di fay fay redevance yi. Mm. état mënu ko résilier lu dul daf la indemniser dala jox ndàmpaay te moom mais mënu la indam mënu ko résilier lu dul dala jox ndàmpaay. loolu nag moo nar indi ay problème ci euh, li ñuy li coow li nii parce que juriste bi nga doon bi nga nee tiit naa. foofu sax laa xalaatoon parce que am na ñu nga xam ne dañu yor këyit. Mhm. këyit gu valable ay titre foncier waaw soit nga am titre foncier. Mhm. wala sax nga am bail. Mhm. ñu sedd la une parcelle de terrain nga def ci sa alal wala boog nga bëgg cee. tabax. loolu tey ak lii nga xam ne mooy dakkal bi bu ñu ko càmbaree ndax mën nañ ko fuqar ñi ci yow. Mm-hmm. ni la kat lii teguwul ci yoon. Mm-hmm. parce que tey shérif moo la ko jaayoon te shérif mm-hmm. amul droit jaay la foofu noonu la problème bi di nekk. bu nu prouver ne ni nga ko amee du yoon mën nañ ci dellu si. waaye prouver ni nga ko amee du yoon lan moo tax muy jafe. déclassement décret du la république la. décret la république pour nga annuler ko. cour suprême nga ngay dem par un recours pour excès de pouvoir. Mhm. ci délai yoo xam ne dañ koo limité dans le temps. Ah. te fii ci corniche bi li ci bëri jamonoy 2000 la. waaw mhm. mhm. li ci bëree bëree bari yu ñu ci ah. déclassé jamonoy 2000 la. donc délai de recours pour excès de pouvoir bi weesu na bu yàgg. loolu di benn ñaareel bi état moom moo la mën a jox bàyyi bu la état di jox bàyyi CCOD la ñuy dem. CCOD defal la attestation. nga dem au niveau des domaines. Mhm. nga signer contrat de bail bi. donc boobu tamit pour nga ne am na sikki sàkka ba nga mën a prouver am na lu ci yoon foofu dina jafe. Mhm. ñetteel bi bu dee yow Serigne Malick yaa am sa contrat de bail ak état. Mhm. mën nga ma ko jaay man. pour nga jaay ma ko procédure bi mooy d' abord ci notaire ngay def. ensuite notaire bi dafa war a saisir les domaines pour demander une autorisation de cession. ñoom ñu autoriser la yow nga mën ma céder. nga céder ma bail bi. boobu tamit pour ñu ne pour ñu mën ko annuler dina xaw a jafe. donc pour won la rek ci tënk ne. new ma ne. duñ mën a annuler mais dina complexe. te dama lay yokkal dara sëñ Malick ñenn ñi joxe nañ ko hypothèque ci banque yi. waaw donc dafay créer benn chaine de risque. ñi am propriété fii ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal ñu ci ëpp bokk ci ñun. Mm-hmm. surtout ñun fonctionnaires yi dangay dem banque leb. boo bëggee jënd suuf da ngay leb. booy jënd suuf di leb. suuf si nga jënd moom ngay garantir xaalis bi ñu la lebal pour nga jënd ko mhm. muy benn booy tabax suuf ngay dem joxe ñu lebal la mhm. tey bu ñuy dugg ci chaîne de résiliation yooyu noonu est-ce que ñu ngi bàyyi xel ne ay banque ñoo ci bind ci yu bari hypothèque mhm. ak risques yi nga xam ne yëpp mën na cee jur ba mën ñoo yóbbu ci li ñu naan risque systémique bancaire donc yooyu yëpp pour mën donc conséquences yi bëri na quoi professeur gis nañ wax nga complexité bi donte euh, bi ñu yëkkatee initiative yi bëri na sénégalais yu rafetlu waaye euh, finalement kan mu ci gagné ci transaction yi nga xamante ne sumb nañ ko ak kan moo ci euh, mën a perte waaw xam nga day xaw a jafe parce que loolu du juriste bi may doon carrément mais day xaw a mm-hmm. jafe nga mën a apprécier opportunité bi mm-hmm. parce que effectivement domaine public la ne woon mm-hmm. kan moo ko ca génnee du n'importe qui c'est le président de la république le garant des institutions le dernier garant de l'intérêt général moom moo ko ci génnee moo ko génnee domaine public yóbbu ko domaine privé mais bi mu demee domaine privé lan lañ ci def am na ñu fa dëkk am na ñu fa dëkk bien am na ñu fa def ay infrastructures donc c'est au cas par cas hmm. donc personnellement dina ma xaw a diis. est-ce que am nañ chance tey pour récupérer waat yenn yenn yenn suuf si nga xamante ne surtout sur le littoral. waaw bu fekkente ne contrat de bail la. Hmm. bu fekkente ne bàyyi la te nit ki matewul la mu signé woon ca contrat ba foofu état mën na ko résilier te du am lu mu ciy tiit waaye bu fekkente ne bàyyi la yoo xam ne nit kaa ngi matee la mu waroon def foog état indemniser bu dee droit de propriété la ci nit ki am te damay fàttali ne bail en 2017 Sénégal dafa voté benn loi ne képp ku am contrat de bail à usage d'habitation demal ñu transformer na ko gratuitement en droit de propriété mm-hmm. te bu ñu ko amee droit de propriété suñu constitution moo ne munoo ko laal ndareedu da nga ko indemniser ba noppi te juge bi la ñu ne mu veiller à ce que le montant de l'indemnisation soit juste mm-hmm. très bien peut-être une dernière question euh, euh, professeur tey juriste bi nga doon lan nga jàpp ne moom la ñu war a def ba lu mel nii ñu éviter ko c'est vrai que li ñu ñàkk ci littoral bi bëri na mais Sénégal yaatu na et puis coowal suuf le foncier pratiquement euh, yàgg na Sénégal on se rappelle l'affaire Malick Ba sàngal kaam boo demee fi nga xam ne mooy euh, mbaan donc coowal suuf bëri na partout et donc comment faire mm-hmm. yan loi et règlement lañ war a tëral bu ko defee coow lu mel nii ñu éviter ko quand même peut-être wala sauver li ñu dese ci ci suñu moomeel ndëpp national rek dama jàpp ndëpp national dafa jot yàgg nañ koy woote ndax mbirum suuf li tax mu xaw a doy waa dafa sensible très sensible ñun boo demee ci sunu waas ñun séeréer suuf dafa am benn sot de divinité bu nekk bu bu ñu am signifié boo demee ci sama cousin joolaay yi dafa am divinité bu ñu am rapport ak suuf mhm. dafa sensible mhm. wax naa sànq ne li ci jëkk andi coow mooy la loi de 64 mhm. dafa ñëw ne suuf yi ngeen jàppee woon seen suufu maam nekkatul seen suufu maam suufu nation bi la muy première attaque pour wan la sensibilité problème yi muy andi. Mhm. moo tax man dama jàpp ne tey dañu war a toogaat ñun ñëpp. Mhm. bu nu defee suspension bi nañ ko def ngir vérifier titres yi. Mhm. bu nu vérifier titres yi ba pare nanu woote ñëpp toog nu. càmbar ko xóotal ka xóotal bi lan lay lan lay wund texte yi du ñooy problème. mais ñu ñu woo ngir ñu appliquer texte yi. man ci sama jëmu bopp dama jàpp ne fa problème bi ne. Ah, ndax bu loi soixante bu loi soixante-seize ne président bi domaine public kenn du ko laal. mais yow président yow rek yaa ko mën a génne. mais ginnaaw président kan ngeen jàpp ne moo war a mën a saytu intérêt général ci réew. su fekkente ne le président a failli par mm. rapport à la protection de l' intérêt général. finalement à qui faire confiance. donc pour man le problème n' pas un problème de texte comme on le pense. mais c'est un problème d'homme appliqué à appliquer à appliquer ces textes là invité a appliquer ces textes là. Mhm. ndëpp bi nag ci yooyu yëpp lay dem. temps bi mayuñu ko. Mhm. tey boo xoolee coowu domaine national bi coowu mairie loolu fan la coow li nekk. Mhm. du ca loi ba ba tey. ñañu woo ne leen joxe leen suuf yi. ci te boo xoolee rapport OFNAC bu mujj bi ay maire la gën a épinglé effectivement mi ngi mi ngi noonu mm. léegi man dernière question bi mu bëggoon laaj mooy ñi nga xamante ne état bi amagul benn at en tout cas buñ posé comme li fi génn c'est un document bu ne secret la est-ce que ñim concerné mën nañu ko attaqué ci yoon et effectivement lu am solo nga nga wax foofu et l'état doit faire très attention ci foofu mm. DSCOS yàgg na nañu ko sanctionné devant la cour suprême xam nga Sénégal bu ñu nee droit rek. ñoom homme politique yi ñoo tax ñuy wax. le droit vit et évolue au-delà des hommes politiques. DSCOS mii yàgg nañ ko fee condamné ndax ay arrêt de travaux. moo tax corrigé na ko ci sommation am bii. dañ ko doon condamné. da doon ñëw rek ne la arrête le tra arrêté les travaux. te du ko fixé ci durée. cour suprême ne ko loolu ngay def te fixé woo ko ci durée tu portes atteinte aux droits des particuliers mm-hmm. moo tax bii yoon des ko ne 21 jours mm-hmm. moo tax li ñu jàppee lettre DGID mm-hmm. li ñu doon awee des moom def na ko moom limité suspension ci durée donte pré euh, def na borox lu ne au cas par cas direction yi mën nañ di apprécier mais fixé wul te ñàkk fixé durée boobu damay rappeler rek ne arrêt yaa ngi fi cour suprême yàgg na ci condamné Descos ne ko booy def arrêt parce que tu portes atteinte à un droit ah. sacro-saint qui est ci nekk mm-hmm. Mm-hmm. donc nañ ci prudent mm-hmm. encadré ko te ñu muy ñu mun a engagé responsable de l'État ci loolu organiser waale ndëpp bi organiser waale ndëpp merci merci professeur leeral yi am na solo c'est vraiment li ñuy expliquer c'est très palpable et c'est très clair ñu ngi lay jaajëfal pour ce cours magistral waaw xam-xam xam-xam rek a wóor Euh, Ibu wa <laughs> c'est ça donc jërëjëf merci beaucoup professeur ñu euh, on va continuer ci euh, le le sujet parce que suñu invité la ñuy soxna Mariam Sow moom moom moom suuf rek lay wax ñu dem léegi léegi une dellu dalal ko.